Muntaxa Mbakke xalif général de Mouride ndax li mu wax bu ci julliti maasee noonu mu ko waxee xéewal yi dana bari ndax kat dañuy delluwaat ci ne Cheikh Saliou waxoon nee na doomu aadama bu ne ñaari biir la la yàlla sàkkal sa biiru bopp bi ak sa biir bàmmeel sa biiru bàmmeel ne la itteel waaye sa biiru bopp moom li ci dem suñu borom moo la koy defar kon nag jooju waxit lu mat a bàyyi xel la ndax dafa mel ni nit ñi àdduna rek da leen itteel bàyyi àllaaxira waaye jamono bu la sunu borom ittee sunu borom bu la ñoree rek ittee joo am sunu borom taxaw dana ci taxaw ndax borom xam-xam yi dañoo wax ne wërsëgu bëccëg guddi leen koy liggéey moo tax Sëñ Tuubaa ne wàcc leen daal di dem ci der yi kon nag nañuy jéeg a teel a jóg. farlu jublu ci suñu borom tabaraka wa la di ko jaamu te di ko sell su ko defee itte joo am sunu borom dañ la ko fajar jàngoro joo am sunu borom dañ la ko fajar te sa kaaraange sunu borom moo ko yor tey ak ëllëg kon nag nañ bàyyi xel ndénkaan di nga xam ne moom la Cheikh Mouhamadou Mountakha wax ndénkaaneem lépp yi nag bëggal nu jàmm àddina ak àllaaxira rek moo tax ndax moom li ko war mi ngi ci kon nag ñun ñun taalibe ak jullit yi nañ boole xol yi doon benn lu waay yéene boppam na ko yéene moroomam ndax ku bëgg am jàmm danga nga yéene ñëpp jàmm ku bëgg si yitte faju yal na la suñu boroom itteel bu la suñu borom itteelee rek itte joo am rek suñu borom dana la ca taxawal bu baax a baax a baax kon nag ndigal la loo xam ne lii yàlla ko digle ak yonent ak sëñ Tuubaa mu yeesal ko moom nag ma nga ca lool mu neen ku dem mu dem ku demul mu dem waaye ku dem nga dem ku demul boo geesoo da gis mbooloo ci sa gannaaw te nañu fàttaliku yi ne Cheikh Abdoulaye woon na dëgg wéet ca ak wéetu ñu ko ñooyam ndax la muy jura gën waaye ku ragal dëgg du dem te du yóbbaale kenn kon nag nan sax ci ndigali suñu borom tabaaraka taala di jëfi sunnat muhammadu sallallahu taala alayhi wa ak ndigal borom xam-xam yi ndax sëñ Tuubaa sëñ bi waxaat na ko ne lu mata wax wax na ko lu mat a jëf jëf na ko bind na bàyyi na fi te la ko tale Cheikh Mouhamadou Moustapha ba ci sëñ Mouhamadou Fadilou ba ci Cheikh Abdoul Ahad Mbacké ba ci Cheikh Abdoul Khadir ba ci sëñ Saliou Mbacké ba ci alxaaji Mouhamadou Baara Mbakke Mouhamadou Fadil ba ci seen Cheikh Matalay mu baax mee dem ba ci sëñ mën Mountakha mi ndigal li lenn la mooy yàlla yonent bi Serigne Touba kon nag nan sax ci ndigal yi ca moytu tere yi koo ko def danga am ah, jàmmi àdduna am jàmmi alaaxira ca nangoo liggéey ca bañ a yàq te ku bañ ku la xeeb bul xeeb kenn.